mu wax dëgg la làmb sponsor rek mënu ko yor di làmb ji tasee même Aziz Ndiaye tëb na ni maa tëgg làmb ji yoo ko jot li ko loolu jaral leeral Aziz Ndiaye tëggul làmb ji Aziz li mu def moom la orange daan def parce que man orange bi may tëgg ñii six cent cinquante millions lañ doon jox par ci télévision lay wax ñu may dégg ku ma mësuma tëgg làmb di ci def sama xaalis donc jàpp aw ko sax mënu ma ko du ko def Aziz bi mu ñëwee ni ma sama Balla parce que Balla Gaye bërëb ko mooy agent mu ñëwee ni ma Balla ak Modou ko du ko def parce que aw ma moom ci boppam moo ne ma sama structure sama euh, entreprise ak sa tubaab yi may liggéeyal am nañu budget de communication mën naa fexe ñu dugal ci deux cent mille premièrement sax dama ba dama bañ ma nekk tàgg la lendemain mu waat ma mën ko amul problème man ko jël loolu moo indi combat bi am moo tax mu wax waru woon a waxee noonu nag mënoon na sama sponsor bi ma ci dugal parce que euh, su dul woon orange ay Tyson Balla Gaye ay Modou Lo nangam nangam doom leen doom tam Sénégal man nitu sponsor laa du xaru sponsor suba su ma sponsor ne woon 300 millions yi nii damaa bëgg tel combat ma man koo engagé parce que foofu danaa wàññi samay gàtt mais ba ko waxee indi na benn buzz bu rëy ci réew man Gaston Mbengue ak li ma def ci làmb ak li ma tëgg ci làmb man xajuma ci kaw kenn man kenn ak moom ci làmb kenn Aziz dafa def yëfu patriote manoon na jël xaalisam dugal ko feneen gis na ni làmb am na mu ay mu wax ay ay partenaire am

te ñu ngi ñu toog ñoom ñaar ñii ñoo lekk seen xaalis ñoo toog nekk benn nekkay xarit ban promoteur. lu tax Gaston nee nga promoteur nga xajoo ci benn benn benn benn promoteur. biir wax wala xajoo ci benn. waaw yaa yaa waaw kenn atanu la. lu tax kon lu waral Gaston di toog ba ñu koy wax ni kaay nga xaalis ngay tëgg. xaalis dafa bari wutul xaalis. quatre ans ngi nii non déggoo ma la su ma